maa ngi am trente ans bi may fa di juróom-ñaari at laa amoon maa ngi koy fàttaliku bu baax fii la woon Dakar suñu kër lañ ko defee woon mu nekkoon lu tiis ak lu metti si man lu ma dul mës a fàtte. li gën a marqué mooy ku jigéen ku ko doon def ku woon indi woon ay lamset ak ay puso di ko baxal ay euh, bagages yoo xamante ni soo ko xoolee da ngay tiit parce que bagage yoo xamante ni day day yàq lu bari dañ koy utiliser pour dagg affaire yooyu noonu mais aussi métit bi moom mu gën a marqué métit bi ba léegi nii dama koy sentir c'est comme si su may wax sax dem nañ dem nekk di yëg métit bi mais aussi deret bu bëri bi ma doon gis tamit man fa laa jaare am traumatisme deret ma ragal deret musuñ ma wax lan moo tax ñu xarafal la musuñ ma wax dañ may xarafal musuñ ma wax dañ la xarafal man maa doon def di def sama ay gëstu parce que dama doon gis que ni man ak yeneen jigéen dafa am loo xamante ne nduroowuñ ko woon ma bëggoon xam lan moo tax lan moo waraloon loolu. nekk loo xamante ni kenn du si wax dañ koy nëbb même boo si wax sax nit ñi di la déglu dañuy def semblant bëgguñ sax bëgguñ nga wax ñoom duñ si wax bëgguñ aussi kenn wax si. xam ko woon mais sama yaay xamoon na li xew mais après li après ñu xarafal ma aussi mosul indi waxtaan boobu noonu. amul amul man biñ may bi ma demee ba màgg ba ñu takk ma ci laa doog a xam ni ci laa doog a xam ni xew yëpp c'est xam amoon naa quelques yu ma xamoon ba ma amee jëkkër ci laa doog a comprendre li xew yëpp. man sama ay mag yuñ ko def man xam naa ne def nañ leen ko bon mais ñoom mosuñ see wax mosuñ see wax dañu noppi.